bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin wasala allahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa saxbihi ajmain mbokki jullit yi noo ngi dellu si di sant borom bi subhaanahu wa taala di seede na amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhaanahu wa taala di ñaanal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na jàmm yàlla ak i xéewalam ak i yàgg di wàcc ci kawam moom ak saabaam ñu dellusi si si jotaay yi ñu amoon si téere bu màgg bi di thalathatil usul di ñetti cosaan yi di cheikh al islaam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu taala si bind bi weesu ñu commencé woon li nga xam ne mooy ñaareeli cosaan bi te mooy jaam bi xam gi mu war a xam lan mooy diineem boroom téere bi rahimahullahu taala leeral ne ne diine joojee di diine lislaam diine ji yàlla subhanahu wa wacce ci yenente bi sallallahu alayhi wa mi ngi nekk ci ñetti tolluwaay li tuddee lislaam ak li ñuy tuddee liimaan ak li ñuy tuddee ihsaan mu waxoon ne benn bu ci nekk ci yooyee dafa ami ponk gannaaw bam ko globalisé dajale ko dina ñëw ci benn bu nekk ci ñetti tolluwaay yooyee ana lan mooy seeni ponk ak lan mooy seeni tegtal ci téere borom bi subhanahu wa ak ci waxi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi looloo waral ba mu waxee ne wa kullu martabatin laha arkaan ne tolluwaay bu nekk ci yooyee dafa ami ponk mu teg sa ne fa arkaanul islaami xamsa shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaamu salaa wa itaau zaka wa sawmu ramadan wa xajju baytillahi alxaram fa dalilu shahaadati qawluhu taala shahida allahu annahu laa ilaha illa hu walmalaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist laa ilaha illa huwa alazizu alxakim wa macnaha laa macbuda bixaqin illa allaha waxdah laa ilaha naafiyan jamica maa yucbadu min duni illah illa allah muthbitan alcibaadata lillahi waxdah laa sharika lahu fi cibaadatihi kama annahu laysa lahu sharikun fi mulki kon looli moo di bindu tey bi comme niñ ko waxee léegi borom téere bi gannaaw bam ko dajalee maanaam ñetti tolluwaay yi nga xam ne moo ŋànk diine diine du génn ñetti yi di al ak al ak al ihsan benn bu nekk ci yooyee dina ci dikk ci ak faram mu commencé ko ba sa jiitu comme nañ ko waxee woon te moo gën a yaatu te mooy lislaam nit ki bu ne léegi jébbalu na dugg na ci lislaam lislaam googee ana lan mooy ay ponkam mu ne fa arkaanul islaami xamsa ponki lislaam juróom la ponk nag buñ ko waxee mooy mbir ma du taxaw mukk lu dul ponk ya dafa taxaw maanaam di plier ak téye yi nga xam ne mooy taxawal lislaam comme ni mu ñëwee si xadiis ibni umar radiallahu taala si buxaari ak muslim yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa wax ne buniya al islaamu ala xams kon lislaam ñu ngi ko taxawal ñu ngi ko tabax si juróomi ponk comme ni ko euh, cheikh saaleh xafidahu llahu taala di waxee ne euh, lislaam mënta taxaw mukk lu dul ponk yi dafa nekk euh, la jéggi ponk yi ci ay topp yàlla subhanahu wa taala ak jaamu yàlla yooye dafa ñëw di mottali dafa ñëw di mottali waaye yii moom ay ponk la mënta ñàkk benn bu ci nekk mënta ñàkk loolu mooy ponk mu ne loola waral euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko jibril laajee lan mooy lislaam mu limal ko juróomi ponk yii te mooy seede gi nit ki di seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala seede ne yàlla yónni yenente bi alayhi wa alihi wa sallam ñaareelu ponk ba di taxawal julli ñetteel ba di joxe azaka ñeenteel ba di woor weeru koor juróomeel ba di e, aji li nga xam ne mooy néegi yàlla bi subhanahu wa taala di e, kaaba ga yii yëpp benn bu si nekk dinañ ci ñëw si ak euh, leeral ak ay tegtalam ci téere borom bi subhanahu wa euh, ak ci waxi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi bi si jiitu di kon li ñuy tuddee baati seede yi di ponk bi si gën a màgg borom téere ba jiital ko euh, lii nga xam ne moo say tegtal ci téere borom bi subhanahu wa mu ne fa dalilu shahaada li nga xam ne mooy tegtale baati seede yooyee si téere borom bi subhanahu wa taala mooy fa yàlla subhanahu taala di wax ci surat ali imran shahida allahu annahu laa ilaha illa ba aaya ba jeex shahida borom bi subhanahu taala bu waxee ne shahida al cheikh saaleh ibni fawzan xafidahu dafay wax ni maanaam liñ jublu ci shahida mooy xakama wa qada wa aalama wa bayyana wa alzama juróom mbir yi la shahaada di tekki maanaam yàlla subhanahu wa taala àtte na dogal na xamle na leeral na waral na yàlla subhanahu wa taala daldi nay àtte hmm, daldi xamle xamle mooy xibaare na eh, daldi waral ne ne annahu laa ilaha illa hu lan la yàlla subhanahu wa taala dogal ko daal di koy waral mooy na amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku moom yàlla subhanahu wa taala laa ilaha dafay ñëw di daq mboolem lu ñuy jaamu ku dul yàlla subhanahu wa taala ñëw di saxal ne lii di ak jaamu moom yàlla subhanahu wa taala moom kese moom moo ko yeeyoo loole mooy maana laa ilaha illa allah buñ koy wax si làmmiñu arab dañ naan laa bi xaqin illa loole mooy définition bu wér bi loolu mooy xamle bu wér bi ci laa ilaha illa euh, ndax euh, am na ay kuréel yu bari yu réer si définir lii nga xam ne moom mooy laa ilaha illa allah ak xamle ko Mm. la say dëgg mooy ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhaanahu wa yàlla daal di loole loolee seede loo ko malaaka yi mu ne malaaka it malaaka yi it seede nañ loole waaye it ñii di ulul ilm di ñooñi xam-xam yi boroomi xam-xam yi seede nañ loole di ne eh, ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhaanahu wa te ñi ñuy jublu si ulul ilmi fii mooy boroom xam-xami sharia yi ñi nga xam ne ñoom la yàlla subhanahu wa taala dénk xam-xam ñu xam yàlla subhanahu wa taala xam ko nañ ko war a xamee ñoom it dañuy seede lool ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te loole dina si feeñ maanaam yàlla subhanahu wa taala teral gi mu teral boroom xam-xam yi maanaam lii ak tagg la si borom xam-xam yi ak teral gu leen yàlla subhanahu wa taala teral si ba mu lëkkalee seede lii di ak jaamu ñeel yàlla subhanahu wa taala tudd sa boppam jiital ko teg sa malaaka yi kam sa teg mooy borom xam-xam yi it ne dañuy seede loolu borom xam-xam yi xam nañ loolu te dañ koy seede kon euh, yàlla subhanahu wa taala ne moom borom bi subhanahu wa taala seede na malaaka yi seede nañ ak ñi nga xam ne mooy ñooy ulul ilmi qaiman bil qisti maanaam ñu taxaw jub xocc moom borom bi wa taala si seedeel ko jaamu googee ne moom yàlla subhanahu wa taala qaimun bil qist qaiman mansuubun ala alxaal dañ ko nasab fii la ko waral mooy xaala kawnihi ay taala kama qaala cheikh saleh ibni fawzan xafidahu llahu taala ndax nee na borom bi subhanahu wa taala moom mooy al adl mooy alxakamu al adl moom yàlla subhanahu wa taala mooy attekat bi gën a maandu si attekat yi moom mooy aji maandu ji moom yàlla subhanahu wa taala moom yàlla subhanahu wa taala taxaw ju xocc si li nga xam ne moom mooy al qist te moom mooy al adl te loolee eh, dafay dëggal la jiitu woon moo tax mu dëgëral wax ja bamtuwaat la mu waxoon ci ne laa ilaha illa bamtuwaat ko ngir dëgëral wax jooje al azizul hakim moom yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy al aziz di aji eh, boroom kàttan ji nga xam ne kenn eh, du ko jiitu kenn rawu ko moom borom bi subhanahu wa taala kenn du ko jiitu moom borom kattan gi nga xam ne amul fu mu yem alxakim di ki xereñ moom borom bi subhanahu wa taala xereñ te goo xam ne amul euh, lu ko gën a xereñ di ñaari tur yu màgg yoo xam ne ay turi yàlla lañ di liiri di al ak al ci turu yàlla yi subhanahu wa yu màgg yi yu sell yi la bokk mu tëjee ko aaya ba wax ji mu wax ne Eh, si aaya bi ne moom mooy ne mooy firnde ci baati seede yi mu fii ko moom borom téere bi ne wa maanaha laa maabuda bi xaqin illa allah comme niñ ko junjee woon sànq ne loolee la muy firi mooy na amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dut yàlla subhanahu taala laa ilaha nee na naafiyan jamia ma yucbadu min dunillah baat ba sa mooy xaaj bi jiitu si kàddu googee dafay ñëw di dàq mbooleem lu ñuy jaamu lu dul yàlla subhanahu wa taala jaamu ku dul dafa ñëw di weddi loolee ne du dëgg daal di saxal nag ne illa allah muthbitan al ibadata lahu waxdahu la sharika daal di koy saxalal moom yàlla subhanahu wa taala lii nga xam ne ne moom kese moom moo koy yeeyoo moom yàlla subhanahu wa taala Euh, loolee la Cheikh Saleh xafidahullahu euh, taala di wax foofe loole moo wér si maana laa ilaha illa kon maana laa ilaha illa mooy laa maabuda bi xaqin illa amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala nee na du comme ñenn ñi niñ koy waxee naan laa xaaliqa illa allah wala laa raziqa illa allah comme yenn kuréel yu réer te bokk si ñoom ñi ñuy tuddal achaara wa man lafa lafahum euh, di viré baat bi màgg bii di laa ilaha illa allah ne amul kenn kuy bind ku dul yàlla subhanahu wa taala wala amul kenn kuy wërsëgal ku dul yàlla subhanahu wa taala loole du tawxid tawxid bi tax ñuy wax di tawxid al ilahiya ndax lii yéefaru yi saxaloon nañ ko yéefar yi dañ koy saxalal dañuy saxal loole ne yàllaay bind yàllaay wërsëgal loole ñëpp xam nañ ko waaye liñ jublu ci laa ilaha illa te baatub ilaah di ko firi mooy al maabud ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala waaye it faw nga dolli ci ci dëgg maanaam booy firi laa ilaha illa allah boo ne laa maabuda faw nga ne bi xaqin illa allah maanaam taqdir boobu foog nga indi ko lan moo ko waral ndax it boo waxee ne rek laa maabuda illa allah maanaam amul kenn ku ñu war a eh, amul kenn ku ñuy jaamu ku dul yàlla loolu boo ko waxoon rek amul kenn ku ñuy jaamu ku dul yàlla du dëppoo ak li am ak li war a am du dëppoo ak li am ndax nit ñi ngi jaamu ñeneen ñu dul yàlla subhanahu wa taala mbindeef yi ñi ngi jaamu ñeneen ñu dul yàlla subhanahu wa taala te jaamu boobu teguwul ci ak dëgg loolu ak neen la kon mi ngi am kon bul ne amul comme di ko al euh, allaamatu euh, muhammad amaan aljaamiyu rahimahu llahu taala si bunt boobee beneen bu yàqu bi muy waral mooy boo nee laa maabuda illa allah kese te boole woo si bi xaq wala xaqun mooy li euh, cheikh saleh xafidahu llahu taala wax tamit ne mooy ñi wax ne almaabudaat kulluha takunu hiya hiya allah yaani pas-pasu wahdatul wujud tamit pas-pas bu bon mooy ne lépp lu nit ñi di jaamu yàlla rek la ñuy jaamu loo mënti jaamu yàlla la waliyaadu billah moo tax mu ne law qulta laa maabuda illa allah hada galatun kabir li ann almaabudaat كلها تكون هي الله والعياذ بالله هنا لكن إذا قيدتها وقلت بحق intafat almacbudat kulluha illa allah subhanahu wa taala la budda an taqul la macbuda xaqun aw la macbuda bi xaqin illa allah illa allah kon boo ne amul kenn ku ñuy jaamu ku dul yàlla ñaari maana yu yàqu lay waral wala moo waral moom mooy waral duñ ko wax maana bu njëkk bi mooy ne nit ñi ñoo ngi jaamu leneen lu dul yàlla kon dafay weddi li ngay wax ñaareel maana bi nga xam ne mooy waa waxdatul wujud ñi nga xam ne dañ naan nit ki lu mu jublu di jaamu rek yàlla rek la jaamu kenn new fi ku yàlla subhanahu wa taala waliyaadu billah foo jublu di jaamu yàlla rek ngay jaamu maa fi l kawni bu yàqula la kon maanaa bu wér mooy na amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa yàlla rek lañu war a jaamu ci dëgg loolu moom mooy maana laa ilaha illallah nga xam ne ñaari ponk la làmboo laa ilaha illallah ñaari ponk la am mooy an ak al ithbaat mooy laa ilaha nga daal di weddi ne amul lenn wala kenn ku ñuy jaamu ba nga weddee ba pare nag daal di saxal sa xal gi mooy ñaareeli ponk bi ne illa allah illa allah ne yàlla kese rek lañ moom kese moom képp lañu war a jaamu moo tax borom téere bi ne wa tafsiruha alladi yuwaddihuha qawluhu taala lay firi lool nag di ko leeral danga koy fekk si alxuraan ba léegi te li gën li ñuy firi alxuraan mooy alxuraan alxuraan yenn aaya yi dañuy firi yeneen yi comme ni sunna yenente bi sallallahu alayhi wa firi alxuraan borom téere bi fii nag jëfandikoo fii lii nga xam ne mooy tafsir al quran bil quran jël alquran di ko firee alquran baatub laa ilaha illa allah eh, ñaari ponk yooyu ñu làmboo comme niñ ko junjee léegi da ngay fekk eh, tafsiram ak fireem mu leer naññ si alquran mu indi sa wa id qaala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani baraa'un mimma ta'budun illa alladi fatarani fa innahu sayahdin wa jaalaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi laallahum yarji'un ñaari aaya yooyee nekk ci surata zuxruf di firi li nga xam ne mooy laa ilaha illa allah ak ñaari ponk yi mu làmboo ci naka yàlla subhanahu wa taala wax ne fàttalikul ba ibrahim waxee baayam ak euh, aw nitam bam leen waxee ne innani baraa'un mimma ta'budun man day ku sori la ku set wicc la si lii ngeen di jaamu lool kon nafyu la lool weddi la mu daldi say teg illa alladi fatarani loolee di isbaat gi di ñaareel ponk bi lu ba mu des walis ki nga xam ne moom mu bind di yàlla subhanahu wa jaamu kon lool mooy laa ilaha illa allah mu ne innani baraaun mimma tacbuduun illa alladi fatarani ba mu waxee ne innani bara'un mimma ta'budun loolu mooy janoo ak laa ilaha illa alladi fatarani mooy dëppoo ak illa allah kon looleet dafa bokk ci aaya yiy firi lii nga xam ne moom mooy laa ilaha eh, illa allah mu leer nañ ci alquran bokk na ci aaya yooyu ba léegi ni ko borom téere bi waxee wa qawluhu ta'ala قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون aayaat yooye nekk ci Ali Imran bi nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala sant na yenenteem bi mu wax ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab di yahud yeeg nasaraan yi nasaraan yee ñëwoon ci moom di nasara najraan eh, doon eh, wax ak yenente bi sallallahu ak a moom ci ay mbir bokk na ci mbir yu mag yooyee lii di mbiru tawxiid ci la ko yàlla subhanahu wa taala sante ne ko taalaw ila kalimatin sawa nee nañu ñëw ñu dajaloo ci benn baat baat boobee mooy lan allaa naabuda illa allah ñu ñépp nañu ànd booloo ñu jaamu kenn ku dut yàlla subhanahu wa taala wala nushrika bihi shay'a kon loolee mooy laa ilaha illa allah an laa naabuda mooy laa ilaha illa allah ñëw di saxal kon ñaari ponk yaa ngi noonu wala nushrika bihi shay'an di taakid ne duñ ko bokkaale kenn moom yàlla subhanahu wa taala wala yattaxida baaduna baadan arbaaban bu kenn si ñun di jàppee ñeneen ñi ay yàlla di leen jaamu te jaamu nga yeneen bi sallallahu leeral na ko si xadiisi xaatim e, ba mu waxee ne nasaraan yi daanuñu jaamu seen seen prêtre yeeg maanaam seen abbé yi maanaam seen njiit ya seen ba yàlla waxee ne ittaxadu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duunillah mu ne ko ah ñun daanuñu leen jaamu yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi ne leen ne ko xanaa daanuñu araamal lu yàlla daganal ngeen leen di topp si loolee mu ne ko ahankañ mu ne ko xanaa daanuñu daganal lu yàlla xaraamal ngeen leen di topp si mu ne ko ah, ibadatuhum kon loole mooy jaamu leen jaamu doy na sëkk ci nga topp ah, ka ngay topp ci lu wuuteeg lu yàlla subhanahu wa taala àtte bis boo ko toppee si lu yàlla daganal mu koy xaramal wala muy daganal lu yàlla xaramal nga koy topp si loolee bu boobaa jàppee nga ko boroom ndax teg nga ko si palaasu yàlla subhanahu wa jaamu nga ko yàlla na wax si aay bi ne ñëw leen ñu dajaloo si jaamu yàlla kese bañ koo bokkaaleeg dara bu ñu jàppee ñenn ñi si ñeneen ñi ay ay ay yàlla di leen jaamu fa in tawallaw bu fekkee nag maanaam beddeeku nañ bañ loolee fa qulu ashhadu bi anna muslimun nee leen ñoom nañ nañu seede nañ leen seedeel yéen seen jébbalu ci yàlla subhanahu wa taala ak seen wéetal yàlla subhanahu wa taala ñoom nañu dem waaye nañ la seedeel yow yenente bi sallallahu alayhi ne ñu wéetal yàlla ngeen kon mbokk jullit yi aay bi dafa bokk ci aay yi firi laa ilaha illa te boroom téere bi indi ko ngir firi baat bu màgg bi di eh, laa ilaha eh, illa allah niñ ko waxee woon saa su ne bu indee lam la indi dara indil ay tegtalam moo xam ci alquran la wala ci sunna yenente bi sallallahu wa sallam nga gis ne fii indil na la tegtal yi waaye tegtal yi eh, nga gis alxuraan firi gi muy firi alxuraan mu jël li nga xam ne mooy baatug laa ilaha maanaam war gi nga xamee ne ne war na ku ñu jaamu yàlla subhanahu wa taala kese bañ koo bokkaale ak dara ak la koy waral muy baati seede yi nii lan mooy firndeem ci alxuraan mu indil la firiga ci même alxuraan di firi baat boobee ba léegi di baat bu màgg boobee nga xam ne ñaari ponk yu màgg yi ñoo ko ŋànk muy an nafyu ak al ithbaat muy dàq ba pare di saxal nga xam ne dàq rek du jëriñ waaye saxalit rek du jëriñ ki nga xam ne dafay dàq ne duñu ñu jaamu dara ñooñu dañu réer ñi nga xam ne dañuy saxalal lii di ak jaamu rek te duñu dàq dara waaye ak réer la gu metti ndax ñoo ñi ngi ñi ngi si ak shirk ah faw nit ki dajale ñaar yi daq mboolem lu ñuy jaamu lu dul yàlla subhanahu wa taala weddi ko daldi saxalal ak jaamu nag ñeel yàlla subhanahu wa taala kese ne duñ ko bokkaaleeg dara loolee mooy tawxiid loolee mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala mooy seede gu mag gi maanaam xaaj gu njëkk gi ndax baati seede yi ñaar la xaaj ba sa jiitu di laa ilaha illa allah lay firi borom téere bi indi si ay firnde yu leer si jotaay yii di ñëw dinañ si gën a ñëw si li nga xam ne mooy shurut laa ilaha illa allah te cheikh saaleh xafidahu eh, llahu taala tudd ko si ba muy charx bunt bi eh, dinañ si ñëw baat boobe dafa ami charte faw charte yooyu jullit bi dajale ko buñ sa jógee ñëw si ñaareelu euh, xaaj bi si baati seede yi di seede gi ñuy seede ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ko yónne ak lamu làmboo kadalika si ay tegtal ak i maana wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala